Omar sa ganangoog honorable député mm. Mor Kana parti démocratique sénégalais mm. responsable bi ca Kaneen Ndiop euh, doonoon député diaspora ñu koy dalal euh, di ko nuyu bu baax a baax sëñ bi kan ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo waaw sëñ Omar maa ngi lay fay di nuyu sa Ndiogu muy waral di nuyu itam euh, Soka di nuyu soxna si sama Didi Diouf maa ngi lay nuyu di nuyu Assane maa ngi leen di nuyu di seen groupe bi yëpp di leen xam ne li ngeen def lu am solo la. Mm-hmm. ndax ñun bu ñu nekkee ci diaspora bi ñu ngi leen di siiwal ci YouTube bi. Mm-hmm. benn émission duñ ci raw te lu ne da ko fiy dégg ndax lu am solo la tey réew noonu lay doxee. di nuyu itam di jagleel nuyu sama secrétaire général national maître Abdoulaye Wade di nuyu sama candidat Abdou Karim Meïssa Wade di nuyu tout le parti démocratique sénégalais PDS maa ngi leen di fu ñu mën nekk ak ñi nekk ci diaspora bi. Euh, sëñ bi Mor Kane parti démocratique sénégalais di fàttali ni mën ngeen ñu seetaan ci solution info TV euh, ak ci Walf TV kon euh, mu ngi noonu léegi comme sànq juñu nga ko sa secretaire général maître Abdoulaye wadd El Hadji bu dee yemb na Abdoulaye wadd gëj nañ ko dégg mais tey am na lu ñu am ci moom jëmee rek ci message bi mu jëmee ci Sénégalais yi ak militants yu PDS yi ñu teewlu ko ñëwaat. opposition yi bari nañu waaye. amul ci benn bu niroog PDS PDS ni ñu ko defaree ni ñu ko tëggee ba mu taxaw benn la professeur espagnol nit ku weex la européen la mu ne ma dafa am lu ma dégg moom laa jëm bëgg vérifier parce que damay bind je suis te PDS dafa ma intéressé ci li ma ci dégg mu ma est ce que yaa wax ni je ne marcherai jamais sur des cadavres pour aller au palais ma ne ma ne ko wax maa ko wax sama wax nag moom am na njëriñ parce que loolu dafa fekk lu ma mën la ordonné woon ci jamono yooyu nit ñi amenez-moi au palais mais diggante fii ak palais kenn du fi taxaw mais dafa dul suñu conception c'est pas nañu ko nangu ba lu ñu taxawal ëllëg ñëpp nangu ko c'est pas la peine ñuy indi loo xam ne lii day indi xuloo di indi xeex ñun nag lañu bëgg chaque citoyen ou chaque militant soit un vrai citoyen. rien compris. les alliances avec qui et pourquoi. alliance yi di nga gis parti yi ñun PDS lañu bëgg a ànd loolu yëpp nag dafa am réglementation. li consolider démocratie à la base c'est que les citoyens comprennent. mi ngi noonu di kàddu Abdoulaye Wade ëpp na lii sax may lii rek lañ ci seggoon euh, li mu ci yokk bokk na ci euh, waxoon na ni bii jël réew du ko jël di jaar ci kaw ay néew euh, ak ñaax ñi di ay militant am ñu dem bindu jóg yooyu yooyu yëpp yokk na ko ci mais ci kàddu yi liñ ci jot a for mooy PDS bu mel ne moom amu fi ndaxte jaar-jaaram ak histoire am ak yooyu yeneen partie amuñu ko bu li mu xaw a wax ci constitution bi aussi tamit booy jàngat leeralul wax ji. mais maanaam comme nan ko defoon ci moom lu constitution bi dogal ñu ànd ceeg yooyu comme ñi am dégg-dégg mën nañ xam fa la Abdoulaye waat di waxee mais Morkan balaa may dikk ci li Abdoulaye wax Wade di wax dëgg-dëgg euh, boo déggee Abdoulaye Wade mii di wax doon mag ak baat bi ak tremblement bi est-ce que nag jotul nag Abdoulaye Wade yéen waa PDS ngeen may ko nag mu dal waaw. est-ce que jotul. waaw xam nga ki ma dégg muy wax di ko wax loo sax ëpp na pour man. xam nga Omar. Hmm. li ngay wax ñun ci la ñu nekk. Hmm. ndax président Abdoulaye Wade kenn ku ne xam naa ne mag la te combattant la boo xam ne bi Afrique yëpp la doon xeexal. Hmm. rawatina Sénégal. xeex na ci opposition vingt six ans ou vingt cinq ans door a ñëw ci pouvoir douze ans ñëwaat opposition ñun fi ñu toll nii ñu ngi ñu ngi defaraat suñu parti di def renouvellement de base du parti ci loolu bu ñu ci def suñu congrès su boobaa mu nekk ñu def ko président d'honneur fab secrétaire général bi jox ko Abdou Karim Meïssa Wade incha allah. Hmm, doomi Abdoulaye Wade yi ban njëriñ lañ amal Abdoulaye Wade parce que nag. non bu bàyyi da ko jur ba toll ci niveau bi ak ni muy waxee bu doon ni ku mu doon ci ñun da nga naan sa bàyyi demal toog noppalu noppal la maanaam li nga waroon ne ñu nekki. mais tey jii PDS doomu Ablaye Wade laa doomu Ablaye Wade laa rek mais doom yooyu ba njëriñ lañ ko amal. Ablaye Wade du Karim rek la jur te Karim it amal na ko njëriñ amal askan wi njëriñ. doom ji ci taxawaay laa wax. doom ji ci taxawaayam laa parce que doom yi matoon ki ñu doon Ablaye Wade du génnati bay wax baatam di mel nii. dama ne la Abdoulaye Wade ci boppam. Hmm. mag la moo xam ne nee na moom bu demoon ba tëdd ci lalu sukuraat du ko tee wax ci ci réew du ko tee wax ci politique. Hmm. kooku mënoo ko tee wax. Hmm. ñaareel ba Karim Wade fa war a féete baayam féete na ko fa war a féete parti bi féete na ko mi mi ngi ci taxaw guddi mi ci taxaw bëccëg nun ñu ànd ak moom ne ci làng gi xam na loolu ci moom moom Karim fa mu nekk ca Douala. xam nañ taxawaay bu baax a baax ci parti démocratique sénégalais. waaw dinañ ci dikkaat ak saa mais kàddu yi léegi nag ñu dëkk ci kàddu yi contenu bi li mu wax ban jàngat nga ci def. li mu wax moo njàngat boobu ci la ñu nekk nun njàngat bi mooy nit ñi nañu leen nañu nañu wax kenn ku ne nga dem tàggat say militant wax ak ñoom ñi nga xam ne bii euh, dañoo war a dem ci liste électorale yi dem bindu ji. ñun ci loolu lañu ne ñun dañ ne militant nekk na wut doon minimum cinq personnes ou dix personnes na ko ko ñu dem bind ci liste électorale yi parce que conquête dañ ko war def ci urne yi lañ ko war a def ñun loolu la ñu ñun PDS loolu la ñu gis mhm. waaw loolu ñu gis dañu dem wax ak nit ñi sensibiliser leen andi programme boo xam ne programme bu concret nga jaay ko nit ñi nit ñi buñ la wóoloo ñu fal la mhm. c'est ça ñaata yoon la PDS dem ci urne yi urne yi génne PDS bañ ba ay nit loru ci ci réew mi fii de 76 à 2000 ñaata nit mais am na lu mel ne yéen da jàpp nit ñi dañuy fàtte dañuy nalaw wala dara mais yoonu Abdoulaye Wade ci politique yoon wu toll noonu ci fitna nit amagu ko ci politique Sénégal. Abdoulaye Wade boo nee ci fitna yoonam amul ci ci politique Abdoulaye Wade en 1974 bi mu créé PDS. Hmm. benn leader fii wala benn borom benn citoyen sénégalais bu ñëwee dékku Senghor amu fi amul. ñëpp koo wax day daw ndax lañ daloon jàmmuma du lañu bañ mu dal leen ñu faagaagal ñoom ja fagaagal ñi fi nekkoon ñëpp. Abdoulaye Wade bañ koy may parti bi ñoo ma nga fekk Senghor ci Mogadishu fa la ko fekk. boobu Moustapha Niass mii mi ngi nekk mi ngi nekk directeur cabinet Senghor. Abdoulaye wadd jaar ci euh, jaar ci tànk foo xam ne fii ak Senghor jaar bu metti la Abdoulaye Wade jiiñ nañ ko fi arme ne da ko jëlee Libi andi ko fii def ko ci toolam bi ci Kër Massar leen mu yóbbu kër sëñ sëñ Abdou Baaxe Mbàkke fële ca Touba te loolu dara amu ci. Abdoulaye Wade rey nañ fi nit jiñ ko Babacar Seye assassinat Babacar Seye jiñ ko fi jàpp ko fi fu mujj Abdoulaye Wade lu ne def nañ ko ko fii torturé nañ ko fi jàpp ko def ko ci kaso liñ ko fi def defuñu ko fi kenn. mais def na fi lu ne moom tamit. waaw Abdoulaye Abdoulaye Wade dafa doon génn dafa dafa jàngal sénégalais yi tey lim jàngal sénégalais yi fii élection bu masaanam da ngay dem wote mille fois wala cent fois loo loo bëgg a wote wote ko Abdoulaye Wade moo ko fi jëlee dugg ci nguuru Abdou Diouf. naxanteeg Abdou Diouf ba nga xam ne bi ñu dem def consensus am ci ci ci ci code électoral bi ci jamono Kéba mbay ñu bokk toog parti politique yëpp toog ñu def ko politique bu sincère ñu waxtaan ba juboo Abdou Diouf ñu andi ko code bi Abdou Diouf ne du ci rendal virgule nii laa koy jàllale mu jàllale ko moo tax ñu am urne tey ak isoloir loolu ci Abdoulaye Wade moo ko xeex Abdoulaye Wade moo ko xeex bañ am carte carte d'identité numérisée koo sa tourné ko ci liste bi amoo carte Abdoulaye Wade da ko xeex kon Abdoulaye Wade loolu mu xeex tey daf koo jar ndax tey sénégalais yëpp ci bénéfice te fi la koy bàyyi mu continuer nu continuer ko suñu doom ak suñuy sët di ko continuer waaw <coughs> jërëjëf euh, sëñ Mor euh, fàttali nga ñu 1974 Abdoulaye bi muy samp parti bi nga xamante ni mais parti de contribution la waxoon. Mhm. loolu la waxoon Senghor moo tax Senghor naa ko laay njombar maanaam da ko nax teg ko dil parce que boobu ñëwut lekk def affrontement mais dane partie de contribution lay créer hmm. loolu mooy li Ablaye doxal léegi Ablaye dégg dañ ko nii mu wax man yéen waa PDS damay wax ne man dinaa sos mouvement ànd sàmm mag ñi dama leen di yóbbu ci yoon parce que mag ñi dañ leen a war a sàmm Ablaye di yéen waratut a wax parce que yéen da nga fa mel ni Ablaye dafa dafa mel ni yéen matu leen ndono parce que bu ngeen watoon ndono dëgg dëgg Ablaye dootul wax mais ñàkk a mat pour doon Ablaye Wade moo tax ba léegi Ablaye Wade di wax est-ce que yaakaaru leen ni mbir mi kon du ci Ablaye Wade waaye ci yéen la yéen a matut li ngeen doon. da ngay laaj wala. laaj la kay waaw bon li nga wax ne Ablaye Wade mag la d'accord nañ ne ñun ñëpp mag la. mais mag mën naa ba cim réew. waxuñu ba tabaaj non non déglu rek mag mën naa mag mën naa ba cim réew. loolu kay waxi mag mag dana toog di gis lu sori. ndaw taxaw te du ko gis. kon ñaar ba Ablaye Wade dafa boole ñett nekk na boroom xam-xam nekk na itam mag nekk na koo xam ne kii itam immigré la dafa immigré waaw kon lu mu la wax téere la lu mu def téere la non loolu man yow fi doon li ngay tontu laaju ma loolu de man li may laaj mooy yéen a matut laa wax maa ngeen matoon bu li xam ni moom ngeen doon Ablaye Wade kon tey jamono ji ñu nekk nii euh, dootut amati tey sax kii mais bu Ablaye Wade di fonctionner ba nëgë ni. kon yéen ma bàyyi leen politique ma ne ma ne Ablaye wàccul ci terrain bi. waaw Ablaye Wade élection législative yi jàll gisoo ko mu wàcc ci terrain. Mhm. mu nga toog këram. waaw élection am mu dem taalootoom dem wote ji. Mhm. Ablaye Wade kenn campagne la wu ko ndax xam nañ ne mag la ko ñun ñëpp bàyyi la ci ñun. Mhm. kilifa la ci ñun. amuñu kilifa gu ko gën a gu ko gën a kawe. Ablaye Wade kenn waxul ne wàcc ci terrain bi mais nag mag la moo xam ne dañ koy laaj xalaat. dañ koy laaj xalaat mais Ablaye Wade mi ngeen dégg moom mais Ablaye ah, wax fi dara. li mu wax bu ko xeeb. dem leen bi nuy mais loolu ñëpp ngi koy wax. déet xal moom avant mu wax xale ya mais mais dama ne la dama ne la avant mu koy wax. ñoo yi ñu ngi buuxante ñu ngi ci buuxante xam nañ ma ne parce que parce que xamuñu xamuñu li ñuy bañ ñun da bëgg a nax parce que Ablaye Wade bu demee ba moment bi ñu ngi wax ay mbir yu Sonko Idrissa Seck génn temps yi passé réew mi yëpp. ñoom libéraux yi ñoo commencé. à ngeen commencé loolu la rek génn Ablaye Wade ñëw duñu wax ay. consti duñu wax ay mbiri ay mbiri constitution. Mm. Ablaye Wade ñëw di ñu wax ay dem leen bindu ji ñun ba ñuy ñun ñu ngi bindu ji te Ablaye Wade waxu ko woon benn beneen bu ci topp ngay dégg ñu naan la sama parti 74 ak histoire bi mu am ñun ñun tey ji dañuy conjuguer au présent maanaam maanaam li ne cët na jonn ak li fi ne loolu mi mais Ablaye Wade delloo ñu ci passé am maanaam amuser la galerie bëgguñu divertir ci waxu Abdoulaye Wade alors que boo xoolee PDS bu doon ab xal dafa giif maanaam PDS dundul léegi bëgg ko dekkal ñu dem jëli benn ab lay Wade ñëw sànni ko sénégal yi comme sa audio bi sax yow yaa na PDS dund PDS da nga koo hmm. gisul mais PDS ngi dund. Ah. PDS ñu ngi réunir ñi ngi toog ci communes yi. ko euh, di toog ci ci ci village yi. toog fan village dafa ndàkk rek. Ah. ñii nu ñoo ngi renouveler suñu parti. Hmm. man bëgg dem kaneen job ga ma bokk. man maay secrétaire général bu bu bu bu communal. Hmm. ci ci parti bi. mais PDS doxul de. PDS a ngi dox. non doxul PDS a ngi dox PDS voix yi mu amoon. ci élection lii lii mooy wane ni doxul. parce que le fait que nga toog fi naan a ngi dox rek mooy doxul. non yow doxoon dañ koy yëg. ko doxalut. gis nga ngeen yéen ñun yéen bu ngeen bëggee PDS PDS dox da di nangu li PDS def ngeen di ko wax non ñun ko invité ñu ngi ni invité la ñu ngi ni non non xam nga ñun membre doo membre PDS man mi membre PDS di wax yow da nga may déglu da may déglu ah. moo wax la ah. parce que PDS hmm? mi ngi dox section boo dem tey ci Sénégal ah. ruq boo dem lu mu suufe suufe PDS a nga jaay carte am ña ngay renouveler seen carte yi jarul kan di kenn jëndu yéen kañ ngeen gën a jaay carte kañ ngeen gën jaay carte kañ ngeen da ngeen di maye nun mayewuñu dañuy jaay mi ngi mel ni yow nga daal di jëw jënd say carte ñëw di may ko meeru koñ ba jënduñu ñun dañuy jaay jarul non ñun dañuy jaay xoolal dañuy jaay seen carte ya carte APR yi ñu sànni woon géej a yam ma ne waaw tudd APR moom tudduma ko waaye dama ne yéen a far nag ay xarit ngeen farunu benn ngeen non non duñu benn discours Ablaye Wade bi APR la arrangé Ablaye Wade man man bi ma dégg moom ah, bi ma dégg mooy nan respecté constitution bi nan dem bindu ji kenn warta kenn warta kenn warta dem élection di jaar ci ay néew alors que bi moom génn na fi palais di jaar ci néew waaw jël ñun ñun ala génn na palais jaar depuis depuis 1974 ba fi deux jours d'aujourd'hui ah, ah. ñun dañ ne duñu dem palais di jaar ci néew non non man waxuma non man waxuma génn palais dama wax affaire affaire ji nga PDS PDS dafi am PDS dafi dund ay 93 PDS dund fi ay 88 ñaata nit ñoo des ci yoonu PDS ñu bëgg ñu gëmal ni PDS bi muy ñëw bi muy ñëw pouvoir nice fitna amul dara amul loolu amul PDS de 74 à 2000 liberté ak ak jot sa démocratie ci réew mi Abdoulaye Wade la ko may am na tamit lu mu la ko may Ablaye Wade Sénégal la tey bu multipartisme mu amee Ablaye Wade ko daw Ablaye Wade ko def kon tey tey boo amee droit yow di wax wala troisième mandat même yow yow rajo rajo télévision rajo télévision Ablaye Wade moo ko yokk Ablaye Wade moo fi indi deuxième télévision du Sénégal Ablaye Wade communication ak ak ak niveau technologie bi Ablaye Wade moo ci jàpp ba tey ngeen mën a wax yéen waaw Mor dama lay laaj fi mu <laughs> instant bi ñu toll nii déedéet instant bi ñu toll nii xam nga Ousmane ko ne dafa yore bagage yi dafa yore nag moo yore lenge yi fi ne nii ndax dafa ni ni ni mu mel nii buzz bi mu am est du leen fàttali des fois rek maître Ablaye Wade parce que amoon na ay temps est ce que wat jarul nag fi mu ne nii wallu ak fi euh, wallu jóge fa nag dem ànd ak Ousmane Sonko. xam nga walloog yeewi suñu ànd moom man du doon doon jóge ci man. Mhm. mi ngi jóge ci kilifa yi. mais du la fàtt Sonko du la fàtt may ma mhm. parce que bi ne bi ne dem ci élection législative. waaw di ànd. doon togg ca suuf. Mhm. ko toggee ba mu nga xam ne bi jour bi ci lañ koy doon publier. Mhm. parce que lañ ca doon bañ mooy ñu yàq ko fii ci Sénégal actuel. Mhm. amul benn parti politique bu demal sa bopp mën a gagné élection te defoo coalition. ñun opposition bi nag li ni woote bu dëggee nekkee ci ñun kenn ku newul da nga war a sumi sa mbubb teg li sa manto nu xool ne Sénégal la nu ñor. Mhm. nu fexe ànd. lii fi nekk lii fi li ngeen di mun a xarit may ma génne ko Mor yéen politiciens yi li ngeen di gëmloo nit ñi man gawuma ko gis nga yéen ñii ñëpp tey parce que yéen parti yëpp PDS PS AFP APR yéen ñëpp bu ngeen dajaloo woon am benn leader mu jàkkaarloog Ousmane Sonko Ousmane Sonko gañe ko yow loolu xam ngeen ko li li ngeen di naxee nit ñi lu tax ngeen di bëgg di naxee di nit ñi xam nga Ousmane Sonko yaa ngi koy wax mu gagné ko Ousmane Sonko bi muy dem ci coalition. waaw mais da leen a dimbali moo leen dimbali. non dimbali wunu bu doon am bu ngeen am député war na yàlla ngeen am député yi ngeen am dimbali wunu. moo leen dimbali non non bul wax loolu. Ousmane Sonko fal fal leen. saa dimbali wunu. moo leen dimbali dimbali wunu. ba noppi ngeen dugg nag commencé. non non mm. waruñu ko yéen ah kay. nan lañ ko war nan lañ ko war nan lañ ko war nan lañ ko war lu mu ne waaw ngeen ne déet. déet ngeen ne waaw. da nga ne may cuut baaraam na ma lii lii lii la def assemblée nationale ba ngeen fa duggee ba ngeen da ngeen a soppi may ma may ma ma leeral la ko yéen ak ña ngeen àndoon ñoom Serigne Abdou Bara Dolly ñoom may ma ma wax la waaw di waxtaan ak ay premier ministre di ree lañ fi amul waaw ak tuumaal Ousmane Sonko loolu amul bu leen nu diaboliser ah quand même bu leen diaboliser PDS PDS musta ànd ak pouvoir la assemblée nationale su fekkee am àndal bi ma mujj a dégg bu wàññi. déedéet antu pouvoir. antu ko la loi bi moom contre Sonko bi ñëpp la tiim. loi bi lu mu wax ñun ci loolu la ñuy tënku. kon ànd ngeen troisième mandat dama lay expliquer réew mi loi yi kan moo ko wote sénégalais yee ko wote nit ñee ko wote président de la république mooy indi na loi bi dama koy def ñu yóbbu ko assemblée assemblée wote ko loi yi sénégalais yee ko wote nun ci kaw loi yi la ñu mën a tënku lan mooy seen position troisième mandat yi nga ne troisième mandat ñu d'accorduñ ci anduñu ci anduñu ci troisième mandat parce dafa defoon euh, révision des conseils euh, de de constitution bi mu ñëwee ñu dugal ci deux mandats Abdoulaye Wade dañoo def trois ne day def troisième mandat la ko ca daloon gis nag mu dal mu mu mu Sénégal yi sanctionné ko. Mm. sanctionné na Macky Sall mi bu dëgër boppee ba fekk ne def na troisième mandat mu dem la daloon Abdoulaye lu ko yées dina ko dal. Sénégal yi danañ ko sanctionné gis nga sénégalais yi am nañ seen fulla ak seen fayda su fekkente ne dañoo def révision de constitution indi vingt cinq articles teg ko ne léegi dañoo bëgg a changer. président de la république bi ñaari mandat yu tegaloo lay doon sept bi ca la cinq ans bi léegi nag la gën a rafet mooy na génn dem taxaw fee organise élection yi ñi ku bëgg a bokk bokk ñu bañ a expliquer kenn ñëpp bokk Sénégal yi tànnal seen bopp seen président de la république. waaw loolu mooy dëgg. Karim Wade nag dina bokk. Karim Karim day bokk. yow Karim yéen yéen vocal yéen groupe wat seen groupe whatsapp bi moom la Karim yor bëgg yow Karim nan la mën a. administrateur groupe seen parti administrateur groupe. ngeen bëgg koo jël leen jox mais yow mais yow mais yow sa émission yi ngay def ci nga koy jàll ci lañ koy déglu. waaw yow ki ngay méngale. c'est la même chose. ki day candidat ki ki daa sa wat sa sa groupe li ngay jàllale sa sa sa émission yi ngeen di jàllale. déet lii day jàll ci télé bi. même télé bi fajiru muy jàllit ci YouTube nga koy dégloo. waaw YouTube nga koy dégloo wala nga dégloo ko ci ci Facebook bi. kon non yéen kon li am solo yéen groupe whatsapp li am solo li am solo ñun Karim la ñu àndal tey Karim la ñuy àndal te mooy suñu candidat dana ñëw. incha allah ñi bañ mu ñëw nag. xam ne kenn bañut mu ñëw moom Karim bu ñëw. ñaata yoon ngeen wax ne Karim a ngi ñëw. moo bañ kan moo bañ mu ñëw. ma li ma lay wax nii. li ma kan moo bañ mu ñëw. Ah? kan moo bañ mu ñëw. am na am man xam naa ko am na ñoo xam ne ñu bëgguñu Karim ñëw. mooy kan mais mooy ki ko génnee réew mi xanaa. ki ko génnee réew mi ca la. ak kan ndax Macky Sall lam def Karim Wade waru ko woon def ndax Macky moo ko génne réew mi te ba mu koy génnee lii ligne internet yëpp da koo dagg ci heure boobu dem ñu teg fi ab jak jak fay di ko xaar ñu yenu ko yóbbu ko génne ko réew mi muy doomu réew mi bàyyam di doomu réew mi bàyyam liggéey réew mi Karim Wade liggéey eh, dëkk bi Karim Wade moom lu ko teree ñëw lu ko teree ñëw lu ko teree ñëw lu ko teree ñëw Omar Sarr ko teree génn dafa dug jaar ci ndar a jaar ndar nuuru nuuru tamit fii lay ndar bokkul bokkut ak Omar Sarr bokkul ak Omar Sarr eh, eh, naa fi ñëw ndax Macky Sall bi bi bi ñu defee loolu mu nangu passeport Omar Sarr. ak Ousmane Ngom ak Ablaye Balde Macky Sall ci bopp moo jëkk a violé loolu. Hmm. moo ko jëkk a violé hmm. ndax moo ànd ak Ousmane Gom jëlee ko fi ci ànd ak moom ci avion dem Guinée. waaw te bo te te boobu te boobu nag confisqué nañ passeport am. kon Macky Sall moo ko Macky Sall ci boppam dallu président Abdoulaye Wade sax bu ko tegoon war na ko man a jomba def li war na ko jomba def doomam li ci magum juróom-ñeent fukki at moo xam ne jaar naa yow fu nekk. Hmm. dafa am loo xam ne ci politique. il faut nu wax ko. Karim. dana ñibbisi dana bokk incha allah tey nun pare nanu nun moom nun moom noo ngi ci campagne nun noo ci campagne bi nun noo ngi ci campagne bi yow nun noo ngi ci campagne bi mais Mor mooy Mor comme li ah, xam ne tey ji ah saa nee na ci groupe WhatsApp bi lay waxee tey ji Ablaye Wade li mu def ni lii xala Ablaye Wade li mu def ni Karim moo ko mënoon a gën a dàq benn ci coté baar ci côté xale mais aussi message bu porté bu doon Karim Wade moo génn tey ji lancer un message est que gën woon jekk que Ablaye Wade Ablaye Wade ñi génne Ablaye Wade Karim Wade du secrétaire général parti bi wala sañu wax am na droit wax mi ngi wax Karim Wade du secrétaire général parti bi la waxee ñi ko doon seeti bi ñu ko seetee ci këram ci turu secrétaire général Karim ñaari baat yi rek la ñemee wax lañ ko autorisé xanaa yow doo déglu message am yi. <laughs> yan message. groupe bi envoyé ko mi ngi envoyé message groupe bi mais wuy ba <laughs> ah. mais mais Mor. Ah. dafa am benn waay bu ma mës a déglu. Ah. tey bi bi ne Abdoulaye wax na rek. sama xel dafa dem ci waa ji. waaye dafa mos a yónnee ay lii quoi moom day analyser ak yooyu. Mm-hmm. bitim réew la ne. mu wax ma ni mm-hmm. Idrissa Seck. Mm-hmm. Macky Sall ak Ablaye Wade réerewuñ ci dara. Hmm. te man audio bii nag moom. ndax daa am foofu dafa dafa dama commencé gëm. loolu mooy ñoom ñëpp ñoom ñett. seen pexe mooy gàllankoor Ousmane Sonko. te génnu Ablaye Wade bi man dafa maa xaw a nag jox. loolu bu tiital Ousmane Sonko ñun Ousmane Sonko ñun jëm. daf mel ne moo leen di dee Ousmane Sonko. Hmm. Ablaye Wade jéem ko. Ablaye Ousmane Sonko bu dul ba ngeen hmm. da nga ma doon wax sax ci assemblée nationale ma dagg. assemblée hmm. ba euh, Ousmane Sonko. dafa am problème ak ay sénégalais. du problème mu nag du problème mu peuple. kam amal sox as soxna la mu duural ko nañu dem tribunal tribunal réglé ko keneen ki Mame Mbaye Niang la moom moo ko duural Mame Mbaye Niang porte plainte ko nañu dem tribunal tribunal réglé ko non non ay déglu ma déglu ma tribunal am na lu mu réglé wul ah. ñi ngi ñi ngi ñi ngi def def nañu appel ah le 17 la appel bu gaawee ni monsieur waaw waaw waaw defal ndànk rek addina ba mu sosoo ba léegi waaw mais nag ay app mam Barthélémy Dias dossier am Macky Sall mhm. Macky Sall moom boo bëggee dégg dëgg soo bëggee dégg dëgg Macky Sall moom fu mu lajje mooy opposition lay cherché opposition la bañ la ma waxoon ca Kaffrine ca la ne danaa leen tas benn par benn démonter leen pièce par pièce. ca loolu la parce que man dama gis sax ñoo xam ne Macky la ñuy jàppale. kan ci internet bi duma tudd turam parce que jarul tudd mais mun a mun temps yëpp Karim Wade la ñuy bëgg a raye Karim a ngi ñëw bis bu ñëwee ñëpp dinañ xam ne dëgg la waa jooju nekk ci réew mooy picc boobu nekk ci internet bi rek. xaw ma ko ah. yaa xola eh, non non jaru kii kay xola ñu xola bi Karim alors que moom alors que moom Ablaye moom moom lu mu yàqul Ablaye Wade ci àddina amul moom lu mu waxul ci àddina jëmee ko ci Sonko amul temps Karim la jël te Sonko la doon défendre. maanaam xeet yu mel noonu waa APR yéen waa waa APR yi leen di jéem a bu temps yi jël Karim Wade bu ko def naan bu ñëwee bu ñëwee coow li geex est-ce que nekkul ni loolu day gën a dëggal ni seen deal bi ngeen si xëj. ñun diilu ñu de non non bàyyi leen baatu diil eh, bàyyi leen baatu diil. Eh, diil ngeen war a teg fële que yéen. benn ma ne yéen a ko jiite fii lañ taxaw. waaw ñu def C25. élection dix euh, élection présidentielle 19 euh, mille neuf soixante dix mille neuf cent soixante dix ñu taxaw. Euh, permanence Pape Diop man maa nga fa woon vingt cinq partis yëpp dañoo signé woon ñu ne bu kenn dem élection parce que fichier bi leerul nañ ko dem audit ñu xam lan moo ne ci fichier bi ak fan la bureau de vote yi nekk ñun ñëpp ñu d'accord ci loolu ñu dem ba biir am ñu rocc ko dem posé seen candidature Ablaye Wade dina leen bu ngeen demee ci lii dañ leen di gagné. parce que Karim Wade bokkul Ablaye du question Karim Wade bokk du question Karim Wade bañ a bokk Ablaye Wade lu mu leen wax ci politique bàyyi ba ñu fay ko. ba boobu ci dil bi la woon rek loolu lépp ci dil dilul. parti libéral la bokk am na droit dem seeti ko Ablaye Wade am na droit ku mu bëgg a seeti seeti ko Ablaye Wade am na droit sax seeti Macky Sall Macky Sall est président Ablaye Wade am na ko am na droit seeti seeti président Ousmane mm-hmm. am na ci droit seeti ko mais Ablaye Wade Ablaye Wade lim lim lim dialogue da koo gëm te du ko tey loolu lay doxal. loolu lay doxal ñaareel ñaareel ba. assemblée nationale assemblée nationale gi nga wax. Mm. ñun bi ñu dem assemblée nationale dañ ne nañ nañ. assemblée nationale dañ ne yow yaa ko wax. yow yaa ko wax. dama ne dama ne budutoo nag Ousmane Sonko li ngeen am ci député du ngeen ko am yéen bu ngeen demaloon seen bopp zéro ngeen dem dara. bu ñu demaloon suñu bopp ñun li ñu amoon ci élection législative li ñu amoon ci élection locale mm-hmm. ci ay voix moom la ñu amaat ci élection élection député moom la ñu amaat Ablaye Wade amuti responsable ay militant la am ñi ngi yor seen i carte ci kër gi te wóor na Rasulullah laa la wax ak ci weeru koor bi bu ñu demee ci élection PDS coalition bi mu demee nii ci élection député mel Mamadou Lamine Diallo ca nekk keneen ku ca nekk génneel ma ko ak benn parce que fële fële ci coalition bële. ak ma ak ñoom moom yéen yéen a ngi wax bëgg leen amnistie non non ak benn candidat may ma rek may ma ba naa ñëw foofu. yeewi yeewi ñaata candidat fa nekk. Mhm. ñaata candidat fa nekk. ñaata fi actuellement ña ñaata candidat fa war a génn dem élection présidentielle ñoom la ñu amoon la ñu la ñu amoon suffrage amoon duñ ko amaat parce que bu ñu divisé woo bu ñu day day tas ana Malick Gakou day beru ñeneen Boubacar Camara day dem. Khalifa Sall de yem Dakar gi kenn mënu ko gagné sans Khalifa Sall. nan waxante dëgg. yéen a ngi nelaw. non non bu dee nelaw baax na. Dakar gi. xam nga yéen ancien politiciens yi ngeen. non non mooy politicien non non dama lay expliquer rek. yéen politique yu njëkk yi ngeen di. saa mhm. yi baaxut. politique baaxatul mhm. politique. Mhm. politique amatu leen matière fu ngeen taxaw pour. calculer ngeen amul xalaat xalaat la. xalaat la. demewul noonu defal ndànk rek xeewi na. débat d'idée la. politique gu démb. waaw dafa ndànk rek. lan mooy politique bu bees. Hmm. politique gu démb lan la mooy politique bu bees laaj naa la ko. xoolal xale yi yéen da ngeen daan taxaw di wax naan taxaw ci mbedd. waaye ma da ngeen daan taxaw da ngeen daan taxaw noonu may ma. naan bindu leen def ay publicité RTS def lu ne bindu ji leen kenn du dem xoolal léegi ni nit ñi di demee di bindu ji loolu jaaxalu leen. mais population bee ko laaj. dana yor population xale. Eh, mais am leader dana yor population xale. affirmé wu itam wane boppam ñeme fi mu jëm. bu ngeen nanguwut li xew. ma ne yéen a ngi ci erreur. yéen ñii. seeyali leen seen parti yi. Eh, ñun tabax. PDS day parti bu mag. di parti boo xam ne bii. parti bu mag la boo xam ne xam na fa mu teg tànkam ñun uh-huh. du ñu topp ci gannaaw benn parti di lambar lambar duñ ko def <laughs> boo amee loolu su fekkente ne <laughs> danga nga am duñ bokk coalition uh-huh. intercoalition. Euh. war nañ ñoom lu ñuy def. Mm. ñu ñëw consulter suñu président groupe. dëgg ñu waxtaanee ko ci biir avant muy génn. may ma rek su ko defee. sa taa jeex na de taa bi. waaw dëjël waaw <laughs> demal demal waxal kon nel kon nel waaw léegi léegi nag su ko defee nun ñëpp nu mm. bokk noo nekk benn mais bu fekkee dangaa jël sa initiative uh-huh. dem ba fële nga ba dem ba fañ koy defee uh-huh. ca assemblée ba nga ne lii laa bëgg a def su boobaa ñun dañuy taxaw na lii duñ ci ànd parce que itam nit da nga koy yëg magum lëndëm ku ko yëgul mu yëg boppam ak di taafantoo jeex na temps jeex une minute jeex na Mimi Touré ñun contre nu mimi mhm. loi ba ci boppam dañ ko faa andi nun waa PDS ci jamono ji ñuy dàq Macky Sall assemblée nationale mu ànd ak Mbaye Ndiaye Macky Sall dàquñu ko sax dafa démissionné mu ànd ak Mbaye Ndiaye ak Cissé Lo bi Macky Sall bi indee loi bi Macky Sall bi mu ñëwee diir bi nga xam ne ci lañ dàqoon Moustapha Cissé Lo ak mbay Ndiaye mhm. loolu mu remboursé leen weer yi nga xam ne bi dañ leen ko dàqoon yëpp mu fay leen ko mhm. ne loi bi anticonstitutionnelle la léegi nag nun bu loi boobu bu ñëwee bu ñoom ñoom ñi ko bañoon ñoom ñi ne woon loi bi baaxul suñ demee ba ne nangu na loi bi baax na ñun loi bi duñ ko rejeté dan ko dañ koy doxal waaw li may tàggatoo rek maa ngi leen di sant di leen gërëm te li ma fi wax itam dama yaakaar lu ma fi wax yàlla jëriñ askan wi yàlla jëriñ peuple Sénégal te ñun ñëpp Sénégal la ñor defar Sénégal la tax a jóg waaye dañuy ñaan yàlla Karim Wade yàlla na ko yàlla indi ci réew mi mu dellu si ñu ànd nag ak président Abdoulaye Wade ànd ak peuple bépp di wax Macky sàll na ko na dindi parrainage na bàyyi ku bëgg a bokk bokk ñëpp dem élection réew mi tànn seen bopp seen président de la république merci beaucoup. message bi nga lancé Euh, nan dem élection ñu tànn ki ñu gënal. Mhm. waaw mi ngi noonu Mor Kane député diaspora. Mhm. Euh, Kaneen Diop di responsable parti démocratique sénégalais. di gërëm bu baax nag ci disponibilité bi mais aussi tamit euh, ci neex deret gi. malgré que ñu ngi koy yëngal. mais doo sànci mu mooy wane ni yàgg na ci politique am na expérience. waaw ah, mi ngi noonu di ñaanal Abdoulaye Wade suñu borom yokk ko wér bàyyi ko fi mu gën a wér gën fi yàgg. Mhm. ndaxte dundam am na njariñ. macha allah ah, kon euh, kaddu gàngoo. macha allah Omar Boun Khatab Gueye waaw comme li nga wax rek ni démocratie macha allah ñu ngi lay nuyu euh, moo nga nuyu waa dëkk ba lu bëree bëri